wa rahmatullah man la Ami Mara vice-présidente du mouvement Barké bi membre de la coalition Diomaye Président inscrire sur la liste nationale waaw bi ma nuyoo sénégalais yi ba pare di nuyu la population kaolackoise li ma leen di wax mooy campagne électorale bi ñun démarré nañ ko mais bi ñu démarré campagne bi dañ ko démarré fii au niveau de la région de Kaolack di leen wax ne leen li ñu indi ci Kaolack mooy bi nga xamante ne 2000 le 24 mars 2024 def nañ élection présidentielle Kaolack waaye dañoo participer massivement wane seen bopp ñëw voté bi ñu voté ñi gañee à 54 pour cent tey nag ñu ñëw ci les élections législatives du 19 du 17 novembre 2024 mu nekk élection yu am importance élection yu am enjeu ndax enjeu bi mooy il faut ñu jox majorité bu écrasante le président le président de la république son excellence Bassirou Diomaye fay voté à 90 pour cent lañ bëgg gañe surtout au niveau de la région de Kaolack mais li waral Kaolack war voté ñi gañe à 90 pour cent parce que boo xoolee le projet souverain juste et prospère bi nga xam ne dafa accompagné avec la doctrine jub jubal ak jubbanti Kaolack da ce am part de responsabilité bu mag ndax Kaolack moo nekk dëkk bi nga xamante ne si je ne me suis pas trompée il était le deuxième de l'économie nationale mais actuellement maa ngi dégg on est en sixième de l'économie nationale kon loolu problème la ci problème la si dëkk boo xamante ne ñu jëlee de l'indépendance à nos jours am nañ douze premiers ministre et parmi les douze première ministre huit yi au niveau de la région de Kaolack lañ dëkk mais teewul ba léegi l'image de Kaolack ku ko dugg fii ñun ñii ñëpp di nga am lu la métti ndax Kaolack ni mel amul infrastructure zéro infrastructure on peut dire amul au niveau de la région de Kaolack te Kaolack nekk benn dëkk boo xam ne carrefour la Kaolack nekk benn dëkk boo xam ne dafa am ay potentialité yoo xamante ne dafa war a mën a développé yoo xam ne moo yor le poumon de l'économie tout à l'heure euh, présidente Mimi wax na ko mooy notre port de Kaolack port bi war nañ ci mën a wax ñu ubbi ko ba pare installé ci industrie boo xamante ne dina permettre suñu jeunesse bii nga xamante ne dawal Jakarta rek la ñuy def c'est vrai que moom lañ am mais suñ gisoon leneen def ko port boobu war nañ ci mën taxaw pour ñu defar ko amaat beneen problème boo xamante ne war nañ ko mën régler ñun bi ñu nekkee xale këwoon fii nii am na trois usine suñu papa yi dañ daan indi ay meew sax fin du ñiy kontaan mais ana usines yooyu usines yooyu yëpp tëj na loolu moo augmenté waa taux de chômage bi mi nga xamante ne ñu bëri dañ leen yóbbu à la retraite anticipée tas ay famille yu bëri loolu lan moo ko waral ay absence de volonté politique ci nit ñu fi nekkoon yoo xam ne jéemuñu dara ci Kaolack ñu paree ci problème boobu problème bi gën a pire mooy le problème de l' assainissement de la région de Kaolack Kaolack problème de l' assainissement su ma juumul ñi fi nekkoon nee nañ dégagé woon nañ un budget pour ça mais zéro réalisation sur les 44 euh, euh, quartiers de la région de Kaolack su ma juumul y a deux ou trois quartiers yoo xam ne dañ ne semi assainissement laay wax sax parce que les tuyaux yi nga xam ne dañ ko fa defoon ça ne répond pas aux normes déjà ndox mi mi ngi coulé ci mbedd mi gën ñu yokk problème augmenté waat paludisme loolu c'est un problème au niveau de la région de Kaolack te bokk na li tax population kaolackoise bi jóg voté à 90 pour cent le 17 novembre 2024. li tax ñu war a mën a jox majorité son excellence boo ñëwee si la projet bi nga xamante ne de souverain juste et prospère dama siy ñëwaat daf ko déterminer par axe stratégique bi mu ko génnee des axes stratégiques mooy daf ko def ay objectifs spécifique boo jëlee axe bu nekk am na presque boo jëlee bu ne am na bu am 8 objectifs spécifiques am yu am 6 am yu am 7 te objectif spécifique boobu noonu bi mu ko defee ba pare daf ko créer sous forme région Sénégal yëpp mu def ko sous forme de pôle léegi huit pôles la ko def gis nga parmi les huit pôles Kaolack moo nekk la pôle centre te le pôle centre daa déter ça détermine agro-industrie te suñu waxee agro industrie cela veut dire que le bassin arachidière moom moo nekk au niveau de la région de Kaolack comme bassin arachidière bi dafa nekk au niveau de la région de Kaolack kon jot na ñu war a am des industries yoo xamante ne day def ay industries de céréales des unités yoo xam ne ça répond aux normes permettre suñu femmes yi def transformation ñi mën a am fu ñuy liggéeyee te loolu bokk na ci suñu programme boo xam ne ñun dinañ ci taxaw war nañ am ay usine boo xamante ne dina permettre liñ ñaan bi kese doyul war nañ ko dooleel yokk ay produit bi yokk matériel boo xamante ne dina permettre mu gën a euh, yokk main d'œuvre am loolu c'est un problème boo xamante ne war nañ ko mën déterminer am na beneen problème boo xam ne moo gën a compétent am muy xorom bi sunu xorom bii boo jëlee kër mbukki nga jàpp jaar nii Fatick nga continuer jaar nga ci ngàcc nawbe côté jigéen ñoo ñëpp seen ginnaaw néegi ay champs de la mais suñu paree looy gis ñu def ko benn transformation bu bu moyen def ko ci ay saaku teg ko ci kaw tali bi di ko jaay mille francs mais su amoon un industrie qui répond aux normes jëlal au demal au Canada aux États-Unis bu froid bi ñëwee boo xëyee neige bi xorom lañ ciy wis muy dem ñun war nañ mën nekk Kaolack benn pôle boo xam ne moo nekk le plus grand industrie du du monde boo xam ne day développé sel ba képp koo xam ne da nga bëgg a exporter war fii nga ko war a jël see loolu bokk na ci loo xamante ne dinañ ci taxaw ba mu am au niveau de la région de Kaolack parce que ressource bi am na fi exploitation bi accompagnement bi loolu moo des loolu dinañ ciy taxaw bu baax incha allah. dinañ ci taxawaat beneen relever l'image de Kaolack parce que aménagement ville de Kaolack bi dañ ko war a def parce que cadre de vie c'est très important ndax booy dëkk ci dëkk naataange bi setaay bi moom moo liy pousser ba nga kontaan te loolu mooy développer tourisme religieux bi ngay dégg parce que nit ñi di ñëw sëriñ euh, boo xoolee ne cité religieuse la am na da ngay gis kër diine yi bari nañ fi am na benn conférence bi ma doon organiser dama wax ne Kaolack mooy dëkk bi gën a barke ci ci le monde entier je peux même dire mën naa ndax lan ma ne leen maam borom Touba fan la jógee Poroxaan ñi ne ñi ne waa ma ne leen maam Baye Niass fan la jógee Taïba Niassène ñi ne waat leneen ma ne la waa Tiwaawoon maam El Hadj Malick si fan la waa ba këram nekk jaamal léegi kon lan moo desati Kaolack léegi kilifa yi nga xamante ni yëpp lañ gën a yaakaar. saalum lañ soqeekoo maanaam ku fi ganeewul àdduna sa waajur fi la ganee àdduna wala fi nga sa say maam fi lañ cosaanoo kon barke boobu nga xamante ne yàlla da def si suufu saalum ñun waa saalum war nañ ko mën a matérialiser nan lañ koy matérialiser mooy ñu jóg ànd voté la liste PASTEF mu gagné à 90 pour cent ñu yóbbu jox président de la république avec sunu tête de liste le président Ousmane Sonko majorité à 90 pour cent man je dis à 90 pour cent te loolu lay prôné te ci loolu lañ nekk di dem parce que il faut que Kaolack change te pour mu la Sénégal change Kaolack daf ci war a bokk ñun ñoo ko war a mën a dérouler. macha allah waa première. Kaolackoise ñi génn ñi accueillir ko. ñu yiir ko parce que ñi ki ñu doon xaar ki bëgg Kaolack ki bëgg Saalum ku bëgg Sénégal koo xamante ne daj na lu ne ndax Sénégal ndax dama koy faral di wax le président Ousmane Sonko lu ko daj lu mu dal lu ko dal sax bëgg Kaolack bëgg Sénégal moo ko teg te boo leen SOS bii dégg naa des années moom moo koy fay location bi kon kooku te am na ay doomu Kaolack yoo xam ne ñi ngi fi am nañ leen mooy defuñu ko kon kooku ku ko gën a bëgg région bi amul te projet bii mu teg daf cee jox parti boo xamante ne bu am importance la au niveau de la région de Kaolack te parti bi boobu boobu bu ñëwee moom dina leen ko wax ngeen dégg ko te su waxee di ngeen kontaan ndax moom ku nekk xam na ne moom ci dëgg ci fulla ci jub la nekk di doxal parce que réew mi dafa dëng te il faut ñu jubbanti ko te jubbanti googu noonu ci la nekk te ànd ci ak sunu président de la république Bassirou Diomaye fay